rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ginaa bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias nuyu leen ziyaara leen ndokkee leen bu baax a baax ñaanati borom bi subhaanahu wa taala yàlla mi am jàmm am salaam sutura àddina ak àlaxira yal yàlla doole nu ko defal euh, gërëm leen bu baax a baax gërëm téléspectateurs yi safoo télévision Futurs Médias boobaak léegi ñu ngi am mbégte nuyu mboolem xalif généro yi na ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér lool nuyu njiitu réew mi nuyu bu baax a baax borom kër gi euh, nuyu kilifa yi nekk ci groupe Futurs Médias yëpp euh, nuyu asatise yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm xéewal sutura àddina ak alaxira yal yàlla doole nu ko defal mbokk yi gërëm ñëpp sant ñëpp am mbégte waaye jéggalu ñëpp baalu àq ñëpp euh, moom daal. moom daal lépp lu nu mës wax loo xam ni juumte la nu ngi koy jéggalu ñëpp bépp kàddu goo xam ni euh, mës nañ koo wax muy kàddu rëcc-rëcc nu ngi koy jéggalu ñëpp ñëpp ñaan yàlla defar suñu mbiri àddina waaye itam ñaan yàlla defar sunu suñu mbiri àllaaxira ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, képp koo xam ne mës ngaa zappe bayam ci ñun nga ni kii ni ma soofee nu ngi ñaan yàlla yàlla nanu la saf ci dara ji mu ñàkk yenn saa yi ngay zappe ba yem ci daal di coupé ni kii ku ma soofa gi nii ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu ñëpp saf yàlla nañu saf ñëpp am mbégte xam ne mission bi di siira waxtaane wuñu kenn ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam Hadj Malick maa ngi maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax oustaz Bab maa lay delloo nuyoo bu baax di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu di la ziar di la ndokkeel bu baax di ñaanal yàlla mbokki téléspectateur u TFM euh, TFM yi nekk ci biir réew mi ki ci biti réew yëpp tabaarakallahu yàlla nañu yàlla may kenn ak jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz Bab di la wax na yow soofoo kenn Ah, ah. waaw yow safoo kenn dëgg yàlla ñëpp nga dee safoo ah man day li may woo ci nit di wax ci yow ki amul kenn ku ma wax ne ni ma oustaz Pape Sofé hmm. wala ni muy defee nii wu nuy defee nii li ngay def yëgal ne wallaahi mosu ko hmm. dégg ah, yëgal ne daal li ngay def Ah, mu ngi dugg ci ah, xolu nit ñi alhamdulilah alhamdulilah mu ngi dugg ci xolu nit ñi de mais que damay dégg baat boobu rek kii ni ma soofee déedéet ah déggaguma ko ci yow ah alhamdulilah te wax dëgg yàlla nag yaakaar naa jamono ji tembe tembe liy jaar ci man di wax ci yow mu hmm. ëpp ah, waaye daal déggaguma kenn du fii du ci bitim réew nga contraire bi kay laay dégg mooy la Oustaz Pape Hann ku ma neex la alhamdulilah ah loolu laay dëgg fa yàlla nit ñi gaaw ci kii ni ma soofee loolu nag dara waralu ko du sa jëmm ji de kan la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. kooku kese moo tax ñu bëgg la. c'est kese du keneen moo tax ñu bëgg la. kon daal nit ñi kenn amul seen fay rek. xaaral waaw kay kenn amul seen te réew mi ñu ne dañu bëgg yonent bi. dañ ko bëgg dañu bëgg yonent bi. dañu bëgg lu baax bëgg nañ seen diine mais xamuñu fu ñuy jaar. waaye nag yëgal ne fii nga toog. loolu sax yaa ma ko gën a xam li ngay tuubloo ci ay nit ah bari na moom dama ko daan compté sax mais xamatuma léegi ñaar jeex na li ngay jubbanti ci ay nit alhamdulilah problème yi ngay réglé ci biir ménage ci biir mm. sëy mm. problème yi ngay réglé ci biir kër kenn xamul nu mu toll alhamdulilah loolu ko ci yàlla fay benn yoon la yonent bi waxoon li an yahdiyaka bika allahu rajulan wahidan mm-hmm. xayrun min ad dunya wa ma nit jaare ci yow jub mm-hmm. nga gindi benn doomu aadama ci kaw suuf. moo gën àdduna ak la ci biiram. alhamdulilah alhamdulilah. daal ah. saxol sant yàlla. est-ce que est-ce que est-ce que yow it xaalis mari kenn amul sa fay eh, jeng ñaan la yàlla la fa la cat amiin yaa rabbal ndax nag Hadj malik boobaak hmm. léegi. dinaa hmm. ñu ngi bëgg a yàgg. waaw téléspectateurs yi miin nañu sunu toogaay bii. dëgg la waaye juróom benn waaye mi ngi noonu. Hmm. Ah, yar gooma woon. ak mbëggeel ak cofeel gu sincère maa mm-hmm. nit ñi dañu defam ñoom dëggatuñu dëgg la dëggatuñu mais nag yow dëgg googu dafa ne ci yow mm-hmm. maa ngi lay ñaanal gudd fan mm-hmm. maa ngi lay ñaanal wér maa ngi lay ñaanal yàlla bu kenn ëpp ëppale ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'islam bii nga taxaw am ci am ci cër nag da ci am cër ndax sa baay alxaaji maxtaar jeng wala yu kaamil tuubal lu bari daan jubanti nit ñi waaw daan jubanti nit ñi waaw nekkoon ku am fulla alxaj maxtaar waaw yéen ñëpp jël jël njabootam gépp yóbbu daara dëgg la waaw loolu nag loolu nag xam nga dafa xamoon lii tey dëgg la wallaay bëggoon na doom joo xam ne ëllëg dana jubbanti nit ñi dëgg la doom joo xam ne ëllëg dana mokkal alquran doom joo xam ne ëllëg xam nga yóbbu sa sa doom daara ni mu mettee dafa metti dëgg la jël la yóbbu la fas turi yóbbu la ca àll ba mhm. ah mhm. waaye fas turi nag day daara barke daara daara la joo xam ne xale bu dafa yoxoos mhm. bala ngaa génne leer leer fees dellu ci sa dënn bi. wallaahi wallaahi waaw waaw. daara ju Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh jànge. jànge wallaahi alazim. Ah, ah, daara ju Cheikh Omar si bu sëriñ moo jànge. waaw Cheikh Tidiane si Maodo jànge. Ah, waaw ah ñoom sëriñ Lamine si sama sëriñ bu sëriñ Mansour. waaw waaw. bari na njabootu Cheikhil Khadim yu fa jàngee. bari ah, na bari na njabootu mboolem ëttu kër yi diine ji bari na ñoo xam ne boo leen bu ñu taj wi jëre nga jaaxle foo génnee ñu ni fasture fasture ah waay waay daara jooju nag xaas ma ne nga xam fa nga jàngee alxuraan ba mokkal mm-hmm. loolu kenn amul sa mm-hmm. fa tabarakallahu ay jàmbaar lañu mm-hmm. ci alxuraanul karim kon xaas ma ne sa ñaan yàlla yokku leeram amiin yaa fa mu tëdd yàlla yokk yërëm ya ilahi waaw mag ñi mag ñi def na daj nañu coono pour seen doom baax seen seen doom baax waaw pour seen yal na yàlla yokk Mali waru Mali maa moom daal aw yónnee nañ ma loo ministre bi yor wàllu diine ji foofu moo ko moo ko signé signé ko waaw dafa mel ne yónnee nañ ma ko te dégg naa ci suba tamit ci rajo bi ah. ñu wax loolu mais du ay fabriqué yooyu a ah, parce que journaliste yi moom xam naa duñ joxe ay fabriqué ah ñoo yi quoi maa ko ci RFM ci suba si léegi. ñu ne Mali ñu ne Mali bokk benn heure de. ah ñoom boori nañ de. ah boori nañ de dëgg yàlla. ñun kan la bokk wala bokk am na parti bu wari ñun xëy na suba incha allah. Hmm. ñun xëy na suba. ah am na ñu xalaat àllarba am na ñoo xam ne alxames la ñuy yaakaar nañ ci la ñuy wax. Pape weer moom mënut a nekk ñetti ñetti fan loolu moo mënul ne. ah déedéet bu boobaa dina am koo xam ne wala ñoo xam ne. waaw ah. wariwuñ ci ca yoon. waaye comme que gis nañ ko Mali moom yaakaaroo ni ah ñu nag ma ne dañoo bokk heure ah ñoo bokk heure bu ñuy tëdd ñoo bokk heure bu ñuy yeew ñoo bokk heure bu ñuy xëdd ñoo bokk heure bu ñuy ndog bu ñu wooree tey fukk ñaar fukk juróom looloo ma jaaxal ñaar fukk juróom-ñett lañ am tey ñun tey ñun am nañ ñaar fukk ak juróom-ñett lañ am 28 ñu wooroon mardi waaw ñu wooroon lundi am nañ tey 29 ñoom forcément tey ci ngoon dañuy séntu ñoom waaw ah, ñun kon tey dañuy séntu waaw yow lu kañ nga waroon pap man kay dégg naa ni na ko war rek war na man bu woo feeñul ma xam ne ma def ko naafi la ah d' accord d' waaw waaw loolu tamit loolu tamit loolu tamit choix la. ah doo def noonu loolu choix la de. doo def noonu. déedéet man nag wax dëgg yàlla damaa xaar ba mardi ba commission bi wax altine ma xëy mardi um. Hmm. waaw parce que information bi mu egg si man lundi fekk na ma ndékki ba xëy ba. nekk ci leneen. mais commission bi yaakaaroon ne war ñoo am ñu leen nekkal Mali am ñu leen nekkal Gambie. Hmm. ñoo bokk benn heure. war naa gën a yaatu de. am ñu leen nekkal Mauritanie. waaw ah, war naa am ñu leen nekkal Guinée. waaw bi. dafa war a yaatu ci Afrique. war ñu ko yemale Sénégal. Mm-hmm. parce que Gambie gii noo bokk benn heure. dëgg la Mali gii noo bokk benn heure. dëgg la war nañoo am it ñu leen nekkal bu ko defee. Ah. bu ñu toogee di woote. Mm-hmm. bu ñu wootee euh, ndar rek bàyyi Casamance. dëgg la ah? war nañoo woote nag léegi nag woote nañu Sénégal gisuñu. Mm-hmm. nañu dem ci sous région bi. d'accord nga xam ne noonu wër. nu woo leen dëgg la. ah loolu it war nañ war nañ commission bi war naa gën a yaatu lii. jar na xalaat war naa gën a yaatu lii parce que Pape. li ñu mënul digérer rek mooy bu ko bokkuloon heure julli ak bu heure lekk ak heure tëdd lu mel ni Màkk wala États-Unis wala mhm. Autriche wala Espagne wala wala déedéet ki nga xam ne nag yéen a bokk heure heure GMT bi nga xam ne bu bu waree bu dogee dix huit heures trente nga dori doog dix huit heures kon yéen a bokk jant bi fi muy fenkee ak fi muy soowee te ashams wal xamaru waaw yes judaani yàlla nee na jant bi ak weer wi mhm. dañu nekk ci na jant mhm. daw mhm. jant bi du ko daf mukk la ilaha illa am na ñoo xam tey ñu ngi ci guddi am na ñu nelaw ni am na ñoo xam ñu ngi ci bëccëg ci boori cinq am na ñoo xam ay huit ci guddi lañ ne ñii ci quatre heures yaa ngi la 9 heures. Ah, waaw 8 heures. 7 mhm. heures. 6 mhm. heures. 5 mhm. matin. dëgg yaa ngi Amérique. dëgg la de yokkaat yeneen 3 heures de temps. 5 heures. ah 4 heures 3 heures 2 matin. ba tey am na ñu nekk Amérique ñoo xam ne 2 heures la ñu. demal ci yeneen réew yi nag am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay 8 heures ci guddi. est-ce que te am na ñoo xam ñu ngi ci bëccëg. kon ñooñu xam ne mënuñu bokk ak ñoom heure woor. Ah? déedéet parce que weer wi weer wi def nii. mais ñi nga xam ne yaak ñoom yéen a bokk benn weer wi nag. ñooñu moom wax dëgg yàlla mu ngeen wareendoo. mu ngeen waroo waxtaan nag euh, yàgg naa jot sax mais dafa war a gën a jot. jot na li tax li tax mag ñi daan xaar. Mhm. doon wootante. Mhm. rawatina ëttu kër diine ji. Mhm. mooy lobby bu nga xam du ñu ay jullit. dëgg la kay c'est très important naan wariloo nit ñi looloo tiital ñu bari na xaj Malick dëgg la dëgg la de xam na ëllëg na yàlla bu ñu waxee ñu bu ñu yàlla bu yàlla waxee lu tax ngeen wooru ñu ne ko ah wala ngeen wari yàlla kat lobi bu ñu amoon ci àddina waaw daan ñu yàqal suñu koor mhm. ba nu ba nu ba nu nànd leen mhm. ñooñu la noo bañ moo tax ñu ñoo doon xaar ba gis rek dëgg yàlla comme xam nga li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni bu la ko jullit koo gëm ak jullitam mhm. bu la ko waxee ah. umal umal bu la ko waxee waril waril mais léegi xaj Malick mooy jullit xam nga problème bi yëpp foofu la nag. bonne question. problème bi xam nga Sénégal li tax ñuy ndéggandiku. Mhm. ah. dafa am dafa am ñu doon woorloo nit ñi di leen woriloo. dëgg la dëgg la de. di leen woriloo te te te weeri feeñu. te weeri feeñu. te duñu ay jullit duñu ñu ay jullit ñooñu nag da ci am ñu dem ba yàlla weer leen. Mhm. waxal ko seen bopp. Mhm. ah, ah nga. léegi nag bu defee arrière taxawaat taxaw seetlu taxawaat. moo tax moo bi fu war nañ ko am ci war nañ ko am ci fu ne ko. dëgg la waaw xam naa daal ministre bi yor wàllu diine ji daal. Euh, fa tabaarakallaahu bu nu ko président dénkoon. Mhm. Euh, laaj ñu ko sax. mais dafa jaadu. Pape Atil Qawsa Bariha. Bariha mu ngi noonu bu nu ko président dénkoon. waaw yaakaar naa yu baree baree. baree day réglé wu. Hmm, dinañ ci taxaw. xam nga tam mbiru weer wi moom ku ko jëloon teg ko sa loxo. nga ut commission bu dëgër. voilà jox ma budget nag. budget bi nag ah kenn mun laa liggéey loo te jox budget. mag ñi may jël xam nga mag day bëgg xaalis. dëgg la naa leen jox salaire yoo xam ne fa tabarakallah. seen xel day dal. am ñu ma yebal Mali. Ah, waaw leen. ñii Gambie ñii Guinée. ñii Mauritanie. waaw ba pare bañ a yemale gisante kilifa yi réew ma. dëgg la waaw ñu ñu ñu waxtaan. waaw boobu nag day fekk fa tabarakallah. ku la ko joxoon parce que ba pare bañ a yemale ci weeru koor kese ci weeru koor kese fukki weer yeeg ñaar yëpp nga koy séntu ñu xam di ko topp di ko topp di ko bind def ko calendrier ah oui waaw ah, def ko calendrier parce que wax nga fi wax bu am solo mhm. suuf si day tourner day tourner weer wi jamono ji tembe tembe am na fu muy feeñ am na fu muy feeñ am na fu mu nëbb mhm. waaw jàngoon naa sax su ma juumul ca tubaab ca français ca l'observatoire ba euh, la terre est ronde lu muy lan mooy suuf si dafa wërngalu dafa nekk lu rond waaw elle tourne sur elle-même sans arrêt un tour complet correspond à un jour à un jour maanaam saa yu tourné ba daj. vingt quatre rek mooy benn fan. jamono jooju muy tourné nag day jox léeg-léeg ñële naaj bi jox ñiy weer wi bu tourné waatee jox ñiy weer wi jox ñeneen naaj bi am dëkk yoo xam ne du lañ jox naaj mukk duñ ko am ne duñ fa jaar. côté bi muy tourné moo tax danañ toog juróom benn weer dañuy gis naaj lu tuuti lay doon. waaw kay màkk nag ñoo ñu raw. waaw ah, ñoo ñu rawee euh, ñeenti waxtu. ba juróom ñeenti waxtu. Mhm. ñoo ñu rawee meek fii ma toog di wax ak yow a màkkaa ngay ngay julli tisbaar. allahu akbar dëkk baa ngoog fa la Seydina Muhammad gane àddina dëkk baa ngoog makkatal mukaram fa la yonent bi alayhi salatu dëkk baa moom la borom bi subhanahu wa taala junju dëkk baa ngoog mooy baladu tayiba albaladul mubaraka dëkk baa ngoog fa la kaabatulaay ne fa la xajatul aswad ne fa la maqaam fala safaak marwa ne dëkk ba ngoog foofu la sayyidina Muhammad gën a àddina moom la waykatu arab bi waxoon ni ko yow day màkka doy na la sëkk teraanga mooy juddoo gi fi sayyidina Muhammad juddoo bu ko fa yàlla yónni wul woon sax doy na la teraanga waaye fi la juddoo fi la ko yàlla yónnee fi la kaabatullahi ne fi la farata yëpp aj yëpp ne waaw waaw ah, law lam yakun gayra baxtil mustafa sababu mhm. li majdiha la kafaha zalika sababu yàlla tuddi na ko bakka ma mhm. makkatal mukaram ci alquranul karim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 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم القرآن ngoog yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur daali ne ko Mamadou mu ni ko naam mu ne ko njaal beenu néeg bi ma njëkk a bind man borom bi subhanahu wa taala teg ko ci àddina mooy makkatal mukarram makkatal mukarram inna awala baytin wudia wudia linnaasi lallazi bi bakkata waaye mu ca de mhm. bi bakkata mubarakatan hmm. waaye wa hudan linnaasi mhm. ya mu ca de moom yàlla fiihi ayatil bayinatin waaye nag maqaamu ibrahim moom makkatal mukarram mhm. fala ne waaw xaaj malik yàlla nee na néeg bi nu njëkk a tëral mooy makkatal mukarram makka nag li taxoon yàlla tuddee ko bakka mooy alxunuqul jawaabira mooy yàlla dafay mokkal euh, loosuk wayu wayu wayu rëy ñi wayu rëy ñi waaw loosuk wayu rëy ñi mhm. waaau bokkul ak bakka mur de lamentation ba ca Jérusalem ah, bakkaa bakkaytu bukkaa an bokkul mhm. waaw foofu nga xam ne yahuud dañ fay taxaw di jooy bokkul ak bakka mhm. waaw bokkul ak bakka dégg nga de borom bi subhanahu wa taala yàlla nee na njaal beenu néeg bi ñu njëkk a tëral mooy màkk bàkk la bàkk la ko yàlla tuddee foofu bàkk waaw bàkk bàkk bàkk mooy mboño mooy mboñoxe na mooy mboñoxe waaw mooy mboñoxe na mm-hmm. luy mu ñu mu ñu unuqul jawaabira unuqul jawaabira borom daraja daal loo rëy rëy loo rëy rëy boo ñëwee taraxlaayu allahu nag xaaj maalik kenn ku ne war na ko jàng ah. na de waaw booy boo boo armalee boo hmm. kebalee say tànk doo mën a dox bu baax booy armal da ngay ubbi say tànk ba sànq leneen yi noonu la leen jàngale ubbi leen seen tànk da ngeen ubbi seen tànk bu ngeen di woddu la ngir nga mën a dox normal normalement dëgg Hajj Malik ñëppay tarxalaayu di nga romb koo xam ne denc nay milliards mm-hmm. doo xam ni kéem na dara ndax li mu sol nga sol li mu taraxlaayoo nga taraxlaayu kenn ku ci nekk yaa ngay ñëw yëkkati sa loxo di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñii ngay jooy ngay ñaan ñii ngay saraxolle foofu ko fa ñëw moo tax yàlla ni moo tax yàlla tuddee ko bakka bakka mubaarakan waaye muy muy dëgg loo xam ne lu yàlla barkeel la mhm. wa hudan neew yamu ci de wa hudan ak njub lil alamin ñeel mbindeef yëpp foofu ko fa dem ñëw changé woo mhm. war ngaa xoolaat sa bopp war nga seetaat sa bopp waaw xajmaa ni nag mhm. tey nag nga waxtaanoon ci makkatal mukaram ndax boobaak léegi weeru lëmb yaa ngi ci di ko wax pèlerin yi waxtaanal leen naka la ñoo ajee wax leen farata yi nekk makkatal mukaram waaye ziyaar ba nu war a ziyaare waaji nag o oh, ñi fa dem sallallahu alayhi wa sallam xaaj Malick yaakaar naa foofu boo fa àggee xam ni benn VIP doo nga am kese amul ñaar muy yonent bi alayhi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallah oustaz Pape macha allahu taala comme ni nga ko ubbee ci sa iftitaax bu rëy bi yàllaa ñu wax ne walillahi ala nnaasi xijjul bayti mhm. waaye man istataa ilayhi sabilan mhm. pap foofu mooy juróomeeru ponk lislaam lislaam juróomi ponk la am mhm. ginnaaw ba nga tuddee baatu seede yi di saxal say julli juróom mhm. di natt azaka mhm. di woor weeru koor yàlla nag ne bis boo amee alal te mën ko mën gi nag ci ñaari anam lay tegu mënug poche ak mënug yaram sa yaram na ko attan bu la benn bu yóbbaale benn feebar wala boo yóbbaalee feebar na nekk feebar boo xamante ni bi ne tabaarakallaahu mënees na koo faj loolu yëpp am na yàlla boole la nag ci loo dem parce que woote la. Mhm. Pape baa yëg nga ne nit lu mu bëri bari bari pexe bu ko yàlla woowul du dem màkka nga ni nekkal multimilliardaire nekkal millionnaire moomal senegal bu la yàlla woowul doo wuy ji. yontu yàlla Ibrahim la yàlla waxoon ne wa addin fi nnaasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq yow daal taxawal ci montagne bi rek woote Abba si nga woote boo wootee képp ku nekkoon ci ndigal baayam wuyu. lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bu dekkoon fete ñebbe dana ma wuyu si. fete ñebbe mooy fan. fete ñebbe mu ci àll bi la fii ci yoonu <laughs> yoonu Tafa bi. fete ñebbe dëgg la. dëkk la dëkk la dëkk la fete ñebbe. Ah, dañuy bay ñebbe. Kousanaar déedéet tur baa tudd noonu rek dëkk baa tudd noonu rek. waaw foo mën a nekk nekkal Autriche le plus bas du monde nekkal États-Unis nekkal fu la neex di nga wuy ji pap tabaarakallahu yàlla moo tax xaaj Malick am na ñoo xam ne duñu fanaanoo benn dërëm. waaw xëy aji xëy dama am lu ma se lu ma fekkee. bisimilah première dame. Mm-hmm. Marème Faye Sall. Mm-hmm. noonu nu koy nuyu soxna Marème Faye Adja Marème. Mm-hmm. dama ànd ak Zeye Asalaam. bu sama yaay aw xumma ma ngi koy nuyu. ànd naa ak at màkk. at yi ma ànd ak moom màkk yëpp. at mu jot. suñu yaay ummu. di yaayu soxna Marème. ci ñun lay demee. ci Adja aw xumma lay demee. mais at mu jot bu ñuy dem. première dame da koy gunge ba aéroport. am jigéen ju jóge ca ndar la jóge xaw ma ginnaaw ndar tuuti. Mhm. jëkkëram ñëw. Mhm. fii ci hangar bi. Mhm. maa ngi taxaw. jëkkër ji indi ko di jooy. ma dem a ngi taxaw nii am ko mu taxawal mi ngi wax ak yaay maa ngi toog nii. première dame ni ndaw si demal nga waa ji de xool laajal góor gi lan lay jooy rek. góor gi ne ko sama soxna ay mbokk ma ko yóbbu màkk ba ma ko ba ma ko ba ma ko xamee léegi musul tukki musul dem fenn. dama am ci moom ñeewante. allahu akbar dama ko yërëm ay mbokk ma ko yóbbu màkk. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye dama ko yërëm. Mm-hmm. waaw musul dem fenn xamul dara. première dame ni ko yow xanaa bëggoo aji mu ko man bëgg naa waaye mënu ma aj mu ne ko lu tax mënoo aj ko parce que aw ma aw ma lu ma ajee damaa bëri bor. mu ne ko loolu sa yoon newu ci ndax bëgg ngaa dem mu ko bëgg naa dem. ci sama kanam la première dame am ko mu woo ne mu tax mën nga maa defal passeport léegi mun ne ko waaw mu ne ko sa bor yëpp danaa la ko fayal. yóbbu la makkatal mukarram ndaw soosu ñoo ko yóbbu ba ñu ko yóbboo tey ñaari fan lañ ci teg jëkkër ji fekk si ko fekk si ko makka allahu akbar loolu nag dama ko teewee dama ko teewee gis ko mhm. mu jëf loolu mhm. ma xam ni yenn saa yi nit fanaanowu dépense mhm. bari ay bor ñu fayal la bor yóbbu la makkatal mukarram yóbbu la ko woote woote ba Hajji Maalik ko woote macha tingoom seede kon wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin kon yàlla ni ko wooteel wooteel rek te bi muy woote yàlla dafa ne yàlla waa nit ñi bi may woote kenn fi mu ne ko sa yoon newul ci ñuy wuy si yow wooteel rek ndax ñooy wuy ji duñ sax sax maas yonent yàlla ibrahima yi moo lay wan ne màkka woote te loola avant rasulaay di ñëw avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw la moo tax bi yonent bi ñëwee yàlla ne ko wattabi millata ibrahima toppal yonent yàlla ibrahima rek yoonam ba mu jaaroon jaar fa kenn ab alquran ba mu daj kenn rek la yàlla la yonent bi yàlla wax ne jaaral ci yonent yàlla ibrahima mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifan wa lam yakun min allahu akbar ndax shakiran mu ni ko mu ne ko wooteel mu woote pap xam nga lu garaaw ci màkka yonent yàlla muhammad yàlla da ko yónni dix ans sallallahu alayhi wa sallam joxu ko julli joxu ko koor joxu ko aj màkka joxu ko azaka joxu ko weeru koor ne ko waxal baatu la ilaha illa kese fukki at waa Màkka lànk comme ni ñu koy wax nettalee as saasu ne. fekk 360 euh, euh, prophète euh, Dieu 360 Dieu. 360 yàlla. yàlla ñu ngi ci biir Kaaba waaw waaw ñoom Yaguus ak ñoom Yaxuus ak ñoom Nas rek ñoom ñëpp a fa. ñoom Laata Xuzaak ñoom Laata Xuzaak Manaata. Hubal nag moo nekkoon yàlla ju mag ji. jërëjëf yàlla ju mag ji. moo nekkoon yàlla ju mag ji waaw yàlla ju a mooy Hubal. dëgg la Hubal. dégg nga mu woote ci fukki at yàlla jox ko julli. te Hubal Amr moo ko ku ñu Amr moo ko woon Cham. Mhm. indi ko Makka ji teg waaw la ko jëndee waaw xam naa ne foofu moom ku fa dugg. yow lay jàppale rek Saam la ko jëndee Saam la yàlla ji. Ah, mhm. dëgg la Cham est-ce que. Mhm. yàlla santaane julli ci fukki at ba ak benn. xam nga yow da ngay faral di wax ne mission bi yëpp 13 ans la. mooy 13 ans yi mu nekk Médine. mais Pape bi yonent yàlla Muhammad ñëwee Médine

ndax dafa am gànt mu ne Aboubacar nekkal commissaire pèlerinage àndal ak saxaaba yi dem aji waaw ca aj ñaar fukkeelu at ba ak ñett nag ca la aji ajam gu rëy gu barkeel googu ci ajjumaay arafam jooju keroog la ca jawab rahma wallahi keroog la na xëguna xëguna keroog la na arafatu kulluhum allah yonti sa yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko dama bëgg nga ñëw dellu màkka mm-hmm. mu ne ko lu fay def mu ko pour nga aji pap la ko yàlla tere woon yëpp gis nga ab pap aj màkka li muy réy yëpp yëpp yëpp yëpp ay xeer la sallallahu alayhi wa sallam wër kaaba gi xeer daw safa ak marwa jóge ci xeer dal ci xeer mhm. dem mun naa tëdd ci ay xeer dem Arafat yendu ci ay xeer jóge Arafat ñëw Muzdalifa for ay xeer mhm. dem Jamra jël ay xeer di ko sànni ci ay xeer la ilaaha illa màkka lépp xeer la xam nga lu ci yàlla jublu kër yàlla amul xam-xam nangu la am yàlla bu ne jug taxaw ngeen ñokket jóg bu ne toog leen toog leen moo tax Serigne Cheikh si mu bëri xam bi ne alxajju suuratu yowmi diini inna lahum fi xajjihim ayatan jallat bi maanaaha nee na aj màkka filmu yowm alqiyaamati la filmu yowm alqiyaamati mu ne xoolal pap li tax mu nekk filmu yowm alqiyaamati pap ku génn àdduna tey lu ñu lay defal ku génn àdduna ku génn àdduna moom dañ lay sàng dañ lay dañ lay sàng sàng la waaw jullee la jullee la suul la jébbal la sa borom ñaanal la yàlla ñaanal la yàlla waaw koy aj màkkaa ngoog aj Makka ngoog bi nga nekkee Medinatul Munawwara waaw fa nga préparé wu sang sa bopp dañ waroon sang sang nga sa bopp dañ la waroon sang sang nga sa bopp mooy sol nga armal jaar jaar jaar biiru aale jaar biiru aale def sa yéene yaa ngay teeree ji nag mun a suul sa bopp mais ñetti façon aj am ñetti façon aj moo am waaw dafa am aj bu wax ifraat waaw am bu ñuy wax tamattu am bu ñuy wax xiraan mhm. mais bu ci gën waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yëpp ñoo yem. dayu ñëpp yem ñëpp yem baax amul benn man man leen di wax ne 20 sur 20 la 20 sur 20 20 sur 20. amul benn bu gën lifraat mooy da nga kennal aj da nga kese te boole woo koog dara. waaw ba aj gi jeex nga def umra. tamatoox nag tamatoox da ngaa jiital sa umra ne yàlla labbayk allahumma bi umra ba mu jeex waaw juróom-ñetteelu fan ba nga sanguwaat julli ñaar rakka yéen a dugal ak ànd gaa yi dem waaw xiraan da ngaa lëkkale ñaari te tàqale woo leen mooy ban ak aj ak umra jamono ji ngay aj ci ngay defaale sa umra. te xiraan comme euh, euh, seen colo xiraan ak colo. Euh, ifraat benn la moom armal doo ko summi. doo ko summi mais tamatox nag boo xasee ñëw màkka. boo xasee ba ñëw màkka ba def sa tawaafu. umra xudum waaw ah? waaw. mën mën nga mën nga. mën nga booy def safa ak marwa ba pare rek da ngay summee ko tojal armal bi. sol sa yére. sol sa yére sangu def ah. solat yére yi ngay sol. sol sa jàllaabe bi. denc ko ba ñuy dem. ba juróom-ñetteelu fan ba. Ah. bu juróom-ñetteelu fan ba nag nga sanguwaat waaw dugalaat yéene na la yàlla labbayk allahumma bi hajjin waaw bee dama laa woo woon ci umra waaw mais bii maa ngi lay wuy si ci aj nga ànd ak gars yi nag dem Muna waaye Pape Sénégal ne kuy tàggoo lu muy wax man te ren damaa fas yéene aj euh, ziyaara ji waaw kay loolu yóbbuwu la nag mais amul benn farata aj bu nekk Medina déedéet amul est-ce que ñëpp dañuy faral di wax ne ah ren de nga ñaanal ma damaa fas yéene ziyaara ji Seydina Muhammad sallallahu waaye nag yóbbuwu la alayhi wa sallam waaye Pape ndax xel nangu na ne cëpp superficie bu yontu yàlla Muhammad tëdd nga teggi ko dem di aji. ñu yonent bi nee na ku fi ñëw ba màkk aj ba noppi ñibbi. waaw faxat jafaan yi. faxat jafaan yi bàcc béccengal nga ma mooy gàcceel nga ma. jëf te ñun nag yàlla Sénégal yàlla daf leen may benn privilège nañ ko xam. Mm. yàlla ni mu santaanee yonent bi aj ni yonent bi ajee noonu la Sénégal yi di ajee. wax naa la léegi nag bi muy sant yonent bi aj Medinatul Munawwara la ko fekk. waaw kon yonent bi Medina la déparé. Medina la déparé dem Makka. dem Makka ñun Sénégal yàlla dogal ci ñun ñun ñëpp ñu ñëw Medinatul Munawwara départ fi Seydouna Muhammad départ. te diggante Makka ak Médine 450 kilomètres. 450 kilomètres la. te oto amul avion. déedéet nga bàyyi xel tam diggante Médine ak biiru Ali 17 kilomètres la fa ngay armale. ca yonent bi dafa sallallahu alayhi wa ah, baax ci moom lay ma lool. te keroog bi mu demee mun a xeer la njëgënaayoo. xeer la njëgënaayoo tëdd ci ay xeer dafa yeewu yaram bi am ay tëndaniir ci xeer yi. mun a ñokkete boobu climatiseur amul tant amul. yonent yàlla la mu daj moo tax ku bëgg a daj dara ci diine mooy wax pap dégg déggogoo dara xam naa ne doo dégg dara mais déggogoo dara loo dégg jëlal loo dégg rek jëlal am na loo xam ne ni foog mu nekk azaka waaw waaw parce que yontu yàlla Muhammad def na ko pape sallallahu alayhi wa sallam dépare Médine dem Makka def ajam ñun Sénégal buñ ne cëpp Médinatul Munawwara juróomi barab yi moo ñu fa yóbbu wala boog barab ya bari na waaye dañ cey tànn juróom yoo xam ne symbole la ci lislaam muy rawdu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ziyaar si ko mhm. waxtaan ak moom mhm. asalaamu aleyka ya rasulallah asalaamu aleyka ya imam almuttaqin mhm. asalaamu aleyka ya sayid almursalin qad ballagta risalata wa addayta al amanata wa nasaxta al ummata wa jahadta fi sabilillahi xaqa jihaadi fa jazakum allahu anna xayran abu hurayrata radiallahu anhu yonent bi nee na moo wax ci làmminam ne bu képp ku ñëw ba fi man ba jàkkaarloo nga xam sama diggante ak yow matatul dix centimètres wala un mètre nga wax ma lii ma la wax yonent bi nee na damay ne ñokket jug toog su ma nee ñokket jug toog dama lay delloo nuyoo jaar si sa jaar ci sa sant Pape li jaroon na dox fii ba Médine. non mais dafa nànk Rasulullah nga ne boo ko nuyoo mu fay la. nee na boo ko nuyoo danaan ñokket jug toog xam na sa tur xam na sa sant da ciy jaar ñaanal la yàlla tëddaat lu nit ñi bari bari bu mu la jaaxal ndax lépp yàlla yonent yàlla Muhammad moo tax yàlla bind ko ñëpp lay fay mooy barab bu njëkk bi beneen bi mooy ngay jullee ci jàkka ja wax naa la fi ne jullee ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk la jullee feneen joof jullee fa mu mel ne 6 mois 20 jours ngay julli naafile yeeg nawaafil yeeg faratay yëpp nga boole ko boo fa jullee benn julli mu wat julli yooyu yëpp kon del jullee ji ci jàkka ja nga ñëw fa jaar foofu nuyu Seydina Aboubacar moo mook yonentu yàlla Muhammad ñoo tëdd teg ci Seydina Omar ñoo tëdd ñoom ñett rek tëdd nag amul keneen ku fa nekk nga ñaanal leen yàlla jàll génn dem baqiyaa ñaanal waa baqiyaa Seydina Muhammad dafa daan dugg wéeru ci garab gu rey ga xarqat naan allahumma igfir li ahli lbaqii alxarqat di mm-hmm. nga ñëw rey loolu ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom dellu ca hôtel dallu pap di nga dem ñetti place yoo xam ne symbole la ci lislaam symbole yu rëy muy masjidul qiblatayni muy quba muy uhud masjidul qiblatayni fa la taxwilul qiblati amee yontu yàlla muhammad julli na un an et quelque di jublu jérusalem mais xol bi màkkaa ci nekk yàlla yir na xool ba gis ne màkkaa ci nekk saa yu julli rek di xool kañ na jibril di ñëw ne ko yàlla nee na ca nisfu mu taxaw biir masjidul nii di julli tàkkusaan première rakka deuxième rakka mu toog taaye na ñokket troisième rakka ne allahu akbar yàlla ne ko foofu nga taxaw ci masjidul qiblatayni fa walli wajhaka wëlbatil saxar kanam wëlbatil saxaar kanam mooy sa jëmm yëpp wëlbatil sa jëmm wëlbatil saxar jëmm ji yëpp rotation jubli màkk bu ci yem décret bi wàcc na wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra à partir d'aujourd'hui kuy julliti ci àdduna na jublu màkk bu mu julliti Jérusalem nabi yónnee waaw waaw yónni ci dëkk yëpp waaw ne à partir d'aujourd'hui def nañ taxawilul xibla nabi yónnee baytul euh, euh, yónnee masjidul xiblatayni xiblatayni fekk la ñuy julli fekk la ñuy julli mu ne nañ wëlbatiku ñëpp jublu nañ léegi lépp affaire bi na la la moo tax mu ne ñu ni jàkkay ñaari xibla ya waaw waaw wa masjidul xiblatayni mhm. foofee lañ waxee woon yonnen fa walli wajhaka shatran fa huwa maqbulu sëñ Haadi Touré moo waxoon loolu ci medinatul munawwara rasul julli moo ñu ni jàkk ñaari xibla ya jërëjëf moo tax ñu ne masjidul xibla tey nii ah. jàkk ji nii ba mu yàgg yàlla ne ko fa walli mu def nii def rotation oh. moo tax ca daara ji bu ñu lay cax na la julli moo am ñaari penku te kenn du ko baax daal kenn ko xablaal bu ñu la laajee mooy julli yonte yàlla Muhammad googu ca masjidul xibla mais bokk Quba la masjidun ussisa ala taqwa buñ la laajee pap ban jàkka lañu njëkk lañ njëkk fondement ci l'islam ci l'islam muy masjid neen masjidu Quba bu dee fa la yonent bi njëkk julli jumaa it jërëjëf fa la yowmal arubati jalal ba di tudd ko ko ah salaatuha mhm. tabarakallahu ca Seydil Xaaji Malick mim ya xilaasu zahab tey Maodo bàyyiwul dara moom mu ngoog kon Quba mooy jàkka ji nga xam ne moom it tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku yàlla indi ba fii nga julli fa ñaari rakk nga laab set wecc ñëw julli fi ñaar raaka mel nga ne ku nekk Sénégal ba mu neex la nga dagg billet boo daggee sa billet dem Màkka def sa umra dellu si yool ba ngay am moom lañ lay bindal ci ñaari raaka yoo am xubaa def nga ñaar mhm. nga jóge fa nag ñëwul uxut xeex bi gën a mett ci lislaam wax nga ko ba tey nga ne xam ne xeex boobu yent yàlla Muhammad taxaw nag buntu kër gu nekk ne segi leen digaale ndax borom kër ga dee na pap ci xeex boobu mhm. l'islam da ko perte li tax mu perte ko mooy ñàkk dégg déggalu sayduna muhammad parce que doxalinu xare ki ko gën a xam ñëpp mooy yonent bi alayhi salaatu la ñu perte mu nekkoon xare bu métti jëlal juróom ñaar fukki nit teg ci montagne bi ne bu leen fi wàcc ak lu mën a xew jullit ñu jàpp yéeféer yi duma leen dàq leen ñu daw génn di jël ngañaay yi ci suuf gaa yi nar a wàcc ñu ne leen yonent yàlla muhammad nee na bu kenn wàcc tey amul wàcc ñu ne ko amee ah, bi yonent bi di wax boobu ci guerre bi lañ nekkoon mais tey xeex bi jeex na mën nañu wàcc ca gàttal ñu wàcc Xaalid ibnul Walid boobu duggagul ci lislaam ko bañoon yonent bi la wa sallam te Xaalid mu jënaat dugg ci lislaam gis nga xoolal Ikramatu Abu Jahl ko jur waaw dugg na ci lislaam bañ a dugg ma doon jël Makka daan wax ne bu leen fàttali ko démb waaw waaw Ah. yàlla xoolul départ arrivé lay xool arrivé lay xool arrivé lay xool mais Xaalid moo tax ñu perte xare Uhud moo tax ñu perte xare Uhud mais tamit fayal fay fay fay nañu fay nañu de ndax moom la yonent bi yónni woon ca bani Kaab ibn Najaar mu tuubal dëkk la dëkku lëmb dëkku lëmb tabaarakallah ziyaar yi nga xam ne moo nekk mhm. euh, dem ziyaar ji Baqia dem ziyaar ji Masjid Qiblatayni dem ñëw Uhud ñëw xare am na benn séquence bu ndaw bu jar a bàyyi xel muy ban ca la ñu dóoree yoon yontu yàlla Muhammad jaasi nga am sa waa ji oh. jam ko xeex ci bopp ba bëñam mu xëm allahu akbar naa feqi dugg ci biir jullit ñi naan kuy xeex ba sa général daanu nag nga mën a ñibbi naa ne Muhammad deena Muhammad deena Muhammad deena jullit ñi xaw a yoon jox dañoo bëggoon déstabiliser jullit ñi jullit ñi di doxul dugg ci biir yéeféer yi di xool di xool ba gis yontu yàlla Muhammad tëdd ak jekki waak taar wa ñu këpp ko ndox mu ne bëreet toog ne nii xool deret ji sango ko boobu nag bachari yëtu gi moo wax ndax nit rek la daan naka wax ana basharun mislukum li ma wuute leen yéen ma yuuxaa ilayya mhm. muhammad jug toog sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jug toog sa waa ji ne kayfa yuflihu qawmun gaddabu wajha nabiyikum biddima aw gaa yu jàpp seen yonent dóor ko ba kotti ko deret ni ñi naka la ñuy texee waaye nag li ko yàlla di bëgg bëgg bëgg bëgg am na domaine privé boo xam ne yàlla nee na bëgguma kenn accès parce que aljanna yàllaa ko moom yàlla ko leer gaa ngi ci loxo waxal rek mu ngoog leer gaa ngi balaax mhm. jibril na lay cëpp na rabbaka yuqrikuka salaam yàllaa ngi lay nuyu oh. wax nga benn wax bu dangereux bu garaaw yàllaa ngi lay nuyu moom yonent yàlla muhammad rek ko mos a dégg mu yàgg ba sa xel dem ci ibrahima dégg ko dégg nga loolu mooy xalilullaahi dégguñu ko Moussa mooy kalimullaahi yàllaa ngi lay nuyu isa mooy ruuxullaahi sama waa ji rek dégg nga <laughs> macha allah ne ko laysa laka min al amri shay dund dee texe texee di am ak ñàkk sama domaine privé la man yàlla xeex la rek xeexal démb da ngaa gañe woon badar tey dañ la gañe suba di nga gañewaat wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas mi ngi noonu bu tey ñii ñooy moomee bu subaa ñoo ñoo ñee ñooy moomee wallaahi alazim gis nga Hadj Malick Ngoog mhm. ci xam-xam bu sell bu rafet bi baarakallah yaakaar naa tey téléspectateurs yi ñëpp mhm. am ñu mbégte mhm. alaj bi kon temps bi xam naa li ci des bariwul nga ubbi ligne bi rek incha allah nga ubbi ligne bi euh, ñu jël téléspectateurs yi safoo télévision fit Médias ñaanal leen ñoom yàlla gën leen a dëgëral gën mhm. leen a barkeel kenn kenn kenn amul seen fay mhm. waaw am na nu mbégte am na ñoo xam ne xajma du ñu nelaw guddi gi waaye fii ak siira jeexul lu ñu tëdd lu ñu tëdd noppalu ngir cofeel gi ñu am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaj Malik ñaan yàlla laabal suñu xol nag amiin baax na xaj Malik euh, nit na na na examiner mhm. laabal xolam bëgg ñëpp sopp ñëpp yërëm ñëpp ñi am dimbali ñi amul boo amee as tuuti nga ciy dimbali aw nit Mhm. te bàyyi nay mhm. xaaj Malick nay nay baaxul mhm. yonent bi da ngay ñëw léegi mu may la bu subaa nga ñëwaat mu joxaat la ginnaaw suba nga ñëwaat mu joxaat la te du feeñ ca kanam ka allahu akbar te daawul ndamu it ci li mu lay jox moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nuy ñaan yàlla defar suñu mbiri àddina ñaan yàlla it mu defar suñu mbiri alaxira ñaan yàlla musul ñu ci musiba ak balaa kasara gàttu fan deegu ñaaw deewu mbetteel gàttu wërsëg gàcce yàlla ci yàlla musal ci daraja yonent bi wa sallam kon xaj man balaa téléspectateurs yi ñëw mhm. léegi jóge nañ Médine ñu nañ Médine ci Médine nag léegi def nga kulu ziar préparé nga nag waaw wat nga say we dagg nga say we mhm. wat say karaw wat say ñugg-ñugg sol nga sa armal sangu nga set da ngay sangu set boo sangoo set ba na ko nag départ dugg oto yi jubali biiru Ali mhm. duggali sa première ponk parce que aj dafa am ñeenti ponk yoo xam ne nii boo ci bàyyi déwénati rek wala beneen paas. mooy ban ak ban mooy al ihraamu wa tawaafu wa saayu bayna safa wal marwa wa arafa. Ah, ndax alxaju arafa loolu la yent yàlla Muhammad wax. mu mu da nga gis hélico yi di wàcc hélicoptère yi. prisonniers yeeg ñi feebar. waaw bu arafa jotee dañ leen di génnee yóbbu leen arafa ñu yendu ji. bu arafa jeex ñu delloowaat leen ci oto yóbbu leen ci hôpital yi. ndax aj Makka loo mën a wute lu dul arafa mënees na koo defar arafa moom teew rek. moo tax yontu yàlla Muhammad waxoon ne waqaftu huna wal arafatu kulluha mawqif mm-hmm. fii laa taxaw waaye arafa yëpp superficie bi taxawaay la parce que 6 millions bu ñu bëggee taxaw fi yontu yàlla Muhammad taxawoon du sotti du sotti du sotti ñëpp taxaw mu ne arafatu kulluha mawqif kulluha mawqif mm-hmm. pape jógee jàkk ja julli fa ñaari rakk fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun fatiha qul wallahu foofu nga dugalee sa ah, na nga ko jàng nag nga bañ a wax la ma sama mère ba waxoon mm. doom bàyyi ma sa saar bii du ma ko mën mane ko yaay lu tax mu a sa saar bi dafa bëri ay dem ak dikk de. mais boo ko mën nga remplacer ko wala. nga remplacer waxat. dégg nga maire naan ma tax bu doona ax bu du tax bu doona rek. lii du ma ko mën de mais mujj na koo am na ay paa ak maire yoo xam ne mokkaluñu Fatiha. mokkaluñ ko mokkaluñ ko de te naa màkk moom juróom-benn yi da nga ko war a mën par force. Mhm. Fatiha. Mhm. qul yaa ayyuhal kaafiruun qul huwallaahu sangu set jàpp ak tiim. am na ñoo xam ne rus nañoo laaj naka la ñoo sango set. buñ ko rusalaak kerse amul ci diine laa xayaa afi diin pap jàng du wees amal 83 ans boo mënul woon fatiha nañ la ko jàngal yàlla du xool départ pap arrivé lay xool moo tax saydna saydna Aïcha daan na wax ni rahimahullahu euh, nisaal ansaar mhm. lam yamnauna euh, min an yasna min an yasalna an amri diinihim an amri diinihim allahu daaw daaw yal na yàlla jërëm jigéen ñi ansaar mhm. yonent bi wax na ko mais Aïcha daan na ko bari lu muy wax mhm. daaw ñu am kersa mukk pour laaj seen wàllu diine laaj seen wàllu diine ndax ndax moom la moom la Seydina Muhammad daan boole jigéen ña ndax ay sax ma faqihatan la woon ndax alimatan di di euh, euh, di di fasihatan waaw moom moom moom euh, ku am déggoon xam-xamu fiq la hmm. nekkoon borom xam-xam mais nekkoon ku am éloquence éloquence waaw daan jàngal jigéen ñi hmm. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum aleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay oustaz Pape An noo def tur bi naka la alhamdulilah sant yàlla Fatou Ndiaye laa tudd. waa kay Ndiaye fooy wootee nii Ndiaye Ndiaye Mbour laay ootee. naka ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax a baax Ndiaye Ndiaye. na ngeen def. alhamdulilah tabarakallah Ndiaye yàlla bu baax. baal leen ñu àq. baal nañ leen Ndiaye baal nañ leen baal leen ñu. maa ngi lay ñaanal yal na la fi yàlla bàyyi. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin. ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam min jaay yal na la fi yàlla yàggal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. yëg nga ne kontaan nañ trop ci sa émission bi. macha allah ndeysaan jërëjëf Ndiaye. macha allah. alhamdulilah alhamdulilah. Oustaz Pape Hann yow defar nga ma man. ndeysaan est-ce que dégg nga. man duma la ko nëbb de defar nga ma macha allah. ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah. ndeysaan oh, ma ngay jooy. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waxoon naa la ko sànq bi ñuy tàmbali xasma nit ñi kenn amul seen waxoon naa la ko bi ñuy tàmbali ah, ah, ah. li ngay defar ci ay nit kenn xamul nu mu toll mhm. yal na yàlla guddal sa fan ba amiin amiin yal na yàlla guddal sa fan amiin amiin amiin macha allah soxna si moom ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax xaj Malick mhm. xaj Malick euh, moom daal moom daal lépp rasulaay rek sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi ziar ñu ngi dellu ziar tur bi naka la alhamdulilah Moustapha Ndaw waa kay Ndaw Ndaw Ndaw Ndaw ñu ngi leen ziar baax di ziar Seydi Hadj Malick ñu ngi la koy delloo bu baax a baax Ndaw di wax ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf Ndaw jërëjëf Ndaw eh, yal na yàlla defal leen jàmm fooy wootee nii amiin defal leen salaam maa ngi wootee parcelle mais maa ngi dëkk Saloum Kaffrine Kaffrine ah yéen sama mbokk nga dëgg la dëgg la dëgg la mais ñu ngi leen ziar bu baax sant bi rek nga ko yàq de eh? ma ni sant bi rek nga ko yàq de <laughs> ah déedéet sant moom macha allah sant bi moom. <laughs> jërëjëf Ndaw Kounda. <laughs> mais ñu ngi leen ziar bu baax a baax. ndaw jërëjëf di wax yàlla yàlla fay leen. amiin amiin ndaw amiin ndaw. dolli bi. amiin amiin bi jaahi nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg yàlla suñuy sangeen macha allah yéen ñi gën a leeral ci diine a di ñu gën a xamal ndeysaan lu ñu xamuloon ci suñu yeneen ndeysaan ah, macha allah macha allah ndaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax daal di wax am nañ contentement bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf waaw yal na yàlla a leen bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baax na jërëjëf a jërëjëf ndaw am nañu yàlla barke lépp ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu kontaan nañu kontaan nañu. baax na jërëjëf yàlla na yàlla kontaan. jërëjëf xaj Malick maa ngi nuyu nak sama benn xarit. di mhm. ko bëgg Sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam jeex tàkk ci Sidil Xaj Malick. Mhm. muy euh, sama directeur général. waaw euh, alxaaji Mbagnick caam ndeysaan Mbagnick Thiam maa ngi koy nuyu nuyu waa Iman wal Ihsan yëpp ca Grand Yoff ndeysaan nuyu ko nuyu ay soxnaam ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral xaj mhm. maa di nit ku tedd Mbagnick di nit ku yiw di nit baax di nit ku mhm. tabe mhm. Mbagnick taba tax yorul ay milliards dëgg la tabe tabe baax baax goo xam ne alaaji Mbagnick Thiam Mbagnick maa ngi lay ñaanal yàlla bu kenn ëppale ci rasulullah sallallahu alayhi yal na yàlla yokkul fas loo xalaat ci teraanga rek def na ko defal na ma ko macha allah di nit ku yiw nit ku tedd alaaji Mbagnick Thiam macha allah koo xalaat dimbali na la

man damay leb tur bi. fooy wootee nii damay baaxantal rek. fooy wootee nii. ak di barkeelu. Mhm. jërëjëf. at bu jot dama daan woote. ndeysaan waaye ren dama nekkoon ci ay xat-xat. dëgg la dëgg la. ajjuma bi passé la sama borom kër am juróom-ñetti fan. ndeysaan yal na ko yàlla yokk yërëm allahumma amin yal na ko yàlla yokk yërëm. kon nag damay barkeelu rek. ndeysaan yal na ko Seydina Mouhamed teeru. allahumma amin wallaay moom laa ko boor moom laa ko bàyyeel. Ah, yal na ko fekk soppe boobu. Ah, xanaa muñ rek. metti na nag waaye ku àgg sa gaar xanaa oustaz Pape. waaw waaw waaw maa dëkk gendarmerie waaw waaw waaw. parce que. Uh-huh. wallaay na ko yàlla yokk yërëm. wallaay na ko sijina Muhammad teeru. amiin yaa rabbal aalamiin. sallallahu alayhi wa dee koy ñaanal rek. dee koy ñaanal rek xam ni jërëjëf metti na waaye dee koy ñaanal dee dafa metti. wallaay wallaay. jërëjëf waaye dee du gàcce. de déedéet dee du gàcce dee sunna la ci jaamu yàlla yëpp ñun ñëpp ñu ngi si ñëppay dem insha allahu taala ñun ñëpp barkeelu rek dama dugg barkeelu comme dama ko doon def at bu jot jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna dama barkeelu may la xol muñ jërëjëf ok kon dee kiiwul rek ndeysaan yàlla baax na jërëjëf xaj Malick ngi noonu euh, moom daal euh, euh, kenn xamul kenn xamul rek euh, mm-hmm. nit ñi cofeel gi ñu am ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam salaamaaleykum allo salaamaaleykum oh kooku rëcc na allo ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan nit ñi kenn amu seen fay xaalis déedéet déedéet déedéet allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu day fay an bi naka la maa ngi tudd Njaga Ñing caatu mer ngoma caatu caatu mer ngoma mer ngoma mer ngoma bu Kër Massar bu Kër Massar waaw kay mbaw nu ngi lay nuyu ñëng ñëng ñëng ñëng ñëng waaw ñëng ñëng wa bahruka taamin la ndeysaan ñëng ñëng ñëng waa kay ñëng waaw ñëng ñun ñoo bokk sa groupe WhatsApp bi. dëgg la dëgg la dëgg la ñu ngi dëgg la Hadj Malick ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax ñu ngi. wallaay réew mi ku ku ñu ngi sant yàlla bu baax nag. alhamdulilah. julli ci yonent yàlla ma waaye nag jaajëf maam Soxna Hadj Malick. radiyallahu anhu. ndax yéen boo leen toogee foofu ñëpp di leen bëri gannaaw yàlla moom la. dëgg la dëgg la ñu ngi dëgg la ñu ngi. ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent yàlla moom di leen bëri bu baax nag. jërëjëf ñu ngi jërëjëf ñu ngi. wallaay suñu ci yonent bi wax ngeen ko lool nag. jërëjëf ñu ngi jërëjëf ñu ngi. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin Aliou Mara ñu ngi lay bëgg ci alxuraan gi neex na lool. jërëjëf jërëjëf ñu ngi jërëjëf. jërëjëf ñu ngi jërëjëf. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin ñu ngi amiin amiin. amiin amiin rabbal aalamiin amiin. ñoo bokk ñoo nekk daara xam Mouhamed ba Kër Massar. dëgg la dëgg la. est-ce que yaa yaa ngi doon suñu conférence. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. dëgg la dëgg la yal na yàlla defal leen jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa zukratan hubban dumu an kasiratan ولا تلتذل للخير بالحب فانيا محمد المنصور نانا ما شاء الله وادب وسر حبا دموعا غسيرة لا تلتذل للخير بالحب فانيا بارك الله ما شاء الله السلام عليكم جرجف دينغ فو الله يمسو دانو واو وزب wasal xubban dumuan xasiratan mhm. wala taltafit mhm. bil xubbi faniya dégg nga mais boo koy firi da nga doone wasub wasal da nga wasub mhm. na nga ruy waaw ruy xubban ngir bëgg sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasal nga yolal tuur sotti dumuan ay rongoñ ay rongoñ xasiratan yadi way bari allahu akbar bil xubbi ngir bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala taltafit bul gestu nag lil xayri ñeel keneen. Mhm. faani yaa mbir moom ngay aji jeex takk ci bëgg rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum Mansour. waaleykum salaam. est-ce que. soxna si ñu ngi lay nuyu. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di di leen ziar kooku oustaz Papa. waaw man la waaw tur bi naka la. waaw man la soxna Marème Ndiaye. gosite komiko Wakaam. ah waa kay Ndiaye Ndiaye Ndiaye. waaw kay aan aan maa ngi di la ziar. Mm-hmm. ak oustaz Malick ne ko toogal. jërëjëf Ndiaye Ndiaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax. yaay. yal defal leen jàpp. amiin amiin amiin amiin yaay amiin yaay amiin. Mm-hmm. Eh, yàlla jàpp yaa rabbal aalamiin amiin yeete neex na ci xol yi. amiin. yéen a yeete nit ñaa ci bànneexu di ci. suturlu. alhamdulilah alhamdulilah ndax. Euh, nit mu amul lu dul contentement ci ki ko jàngal ci li lépp ci yàlla la jëm. wallaahi wallaahi kontaan nañ ci yéen bég nañ ci yéen. Mm-hmm. ñu ngi leen di sago. jërëjëf jërëjëf yaay. yàlla na yàlla defal leen jàmm. amiin allahumma amiin jaay amiin. yàlla bu mu doon sunu mucc koor. amiin yaa rabbal alamin amiin jaay yëpp yàlla nanu ko bokk jëriñoo ñun ñëpp. ci biir ay ay. sallallahu alayhi wa sallam. seen émission bii. Mm-hmm. ah yàlla bu baax. yaay mm-hmm. sant yàlla bu baax. Mm-hmm. ndax nit ki toog di la yee. Mm-hmm. amoo fayam. déedéet yàlla moo am fa jàllale yàlla fay. amiin allahu amiin amiin yaa oustaz Malick. jërëjëf yaay wax ne nag seen émission QG bi. jàppaleen ci bu leen ko bàyyi ndax li ngeen wax ci maam Seydi El Hadji Malick. Mhm. barke bi xol yëpp dafa sedd Pape. macha allah alhamdulilah xol yëpp dafa sedd. ndeysaan ndeysaan. amuñu lu dul waxal nag maam Seydi El Hadji Malick lu dul. Mhm. jërëjëf jaaraama jaraw lakk Seydi El Hadji Malick. radiyallahu taala anhu kenn du moom kenn du moom. macha mhm. allah kenn du moom si Malick. ndeysaan ndeysaan. kontaan ci yéen nag di leen wax ne rek yal na yàlla wéral baat yi. na yàlla defal jàmm defal salaam ci Sénégal gi. jërëjëf ndax budul woon gaa yi yàlla yooyu. Hmm. ah. Hmm. ne olof de nee na budul woon tubéy. ah ñaaw wallaahi waaw ah, waaw daal yaar na ci Mbapak Sidi Ahmed. ndeysaan Ahmed Sarr moom. Ahmed Sarr yeey moom kii nga xam wallaahi amiin wallaahi wallaahi yal na ko yàlla def te nu bokk. amiin amiin amiin amiin amiin. ah yaay. yàlla yaay kontaan nañu bu soro ci barke yonent. amiin amiin amiin amiin. jërëjëf kontaan naa yaay waa kay Ndiaye. xaj Malick mi ngi noonu nag sama yaay bopp Adja Ndak Ñang. Adja Ndak Ñang Adja fii ci Yoff. xaj Malick moom Adja Ndak. da bëgg ma rek ngir yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mais est-ce que xam nga ni Hadj Malick. Mhm. man maire yi ñooy samay ñoo ñoo ma gën a bëgg. dëgg la maire yi. waaw maire yëpp samay xarit la. dëgg la. yenn saa dañ naan ma wuutale wuñ la ak doom ji nu jur. dëgg la de. waaye loolu yonent bee ko waral. wallaay man ak ñoom dañoo bëgg yonent bi. ak ah, xam nga lu tax. waaw ah, maa leen di wéttali. li jërëjëf. loolu rek laa bëggoon wax maa leen di wéttali. waaw ci yonent bi ci mi ngi noonu maa ngi leen di ñaanal ñoom itam yàlla yàlla doo lay guddal seen fan sama yaay yi mhm. yàlla bàyyi leen fi sama soppe yaay yi nga xam ne jiitu nañu mhm. yàlla yàlla yërëm leen ay pap bëggoon naa nga firil ma wa zurna quba waaw baadal baqii wa uh-huh. kullu ma yuzaaru zurna asfi xaraam yi asfi xaraam mu ni wa zurna ziyaar nanu xuba mhm. moom nga wax léegi masjidu xuba waaw baadal baqii baadal baqii ginnaaw bu ma jógee baqii nag ah kullu maa yuzaaru wa kullu lépp loo xam ne lépp la nga xam ne yuzaaru def na ko ziyaar ñoom uxut ak ñi ci ñoom uxut ak ñoom masjidu xibla tey nekk masjidu xubaak euh, jàkkaarloo bi mu ne journal waaw ziyaar naa ko waaye as fii nag ah? may saafara waaw xaraamiyaa sama marum xóndooñ sama marum xóndooñ ah. sama marum xondooñ xaraamiya ah. sama marum xondooñ xam nga marum xondooñ déedéet xam naa boori Ndakaar duñ ko amee dëgg la boori Fuuta mhm. ak boori Tamba Kédougou naa maanaam fa tàngaay ba gën a am ci Sénégal mhm. fa nga xam ne daal moo gën a tàng mhm. weeru koor bu jotee waaw ah. noonu sa put di woowee di woowee ah waaw mooy marum xondooñ ok ëllëg yëmal xiyam di nga dend nit yuuram di bax yow doonte sa yuur ba xawul nga tiit tiitaange mar googu nit ñi mar nga xam ne bu ñu duggee aljanna mm-hmm. dañuy daw ca dexu kaw sara naan yi mm-hmm. ndax mar ndax mm-hmm. tàngaay ba mooy marum xaraam ya sama marum xondooñ ne góor gi ne nag marum as fi may saafara xaraam ya sama marum xondooñ li ma li ma maroon ci bëgg yàlla mar ko ci bëgg sidina Muhammad mar ko ci leer lépp saafarawu na Pape loolooy état bu Médine <laughs> mooy état bu Médine li ñu ci wax yëpp waaw moom la alaaji Mansour tënk ci bayit boobu looloy état bi Médine zurnaa Quba ba'da al baqi'i wa kullu ma yuzaaru waaw zurnaahu asfi xaraam asfi asfi may saafara xaraam yaa sama maram xondoñ macha allah ah, moo tax ndakaaru xam nga dafa sedd waaw xamaa di nga toog ba ngoon doo mar doo mar moo góor gi bi mu jógee fuuta ñëw ci kër doom ji doom ji yàlla ubbi ko xéewal mu am fi doom doom ji am fi kër indi ko dugal ko ci néeg boo xam ne dañ ko climatiser góor gi bu génnee ci néeg bi dugg ci saal bi saal bi sedd guy ju climatiser ko bu tàkkusaan jotee ñu laal ko ci boori jardin bi piscine baa nga foofu bi mu ñibbee daa ndax lan nee na ndakaaru ndax <laughs> ndax Marou. nee na yëgul koor. ndax sedd gi. ndax sedd gi. waaw yëgul koor nee na daal. ndax sedd gi nee na Dakar wóorunu. ah day na waar bii am na ku ne ci ligne bi nañ jël kii ah salaamaaleykum. am na ko dem léegi de nu ngi jégalu de salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. TFM du direct de kon. ankay maa ngi yow la ngay direct yaa ngi direct. Euh, oustaz Pape Hann laa bëggoon wax. maa ngi nii di wax ak yow salaamaaleykum soxna si ma la nuyu. na nga def. ah bi naka la. maa ngi leen di woo depuis Matam. Matam wàññil télé bi wàññil télé bi. fi ngay fi tudd léegi tax tàngaay. di rafetlu seen émission bi bu baax bu baax. jërëjëf. di kontaan ci yéen. bi naka la. waaw waaw waaw maa ngi koy wàññi. di kontaan moom niñ ciy jëlee njëriñ bu baax bu baax. jërëjëf noo tudd. Marème laa tudd. Marème nan. Marème Niang Marème Niang. waa kay Niang jërëjëf Niang bisimilah. kontaan nañ trop yàlla ñu yàlla may waat fekkee déwén. ñu ngi lay may waat fekkee déwén. kontaan nañu kontaan ñu waa nuyu ñu yëpp. ñu ngi ñaan ngeen nang may ñu ñaan ñaanal ñu lu bari lu bari. incha allah incha allah yal na yàlla barkeel. incha allah incha allah. merci merci. kontaan nañu soxna Mariam jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yàlla fay. wallaahi wallaahi Haj Malick eh, yal yàlla fay soppi Sidina Muhammad yëpp kenn am nañu mbégte. yal na yàlla yokk leen dëgëral mais nag Haj Malick sama yaay Ayandaak Niang. Mm-hmm. koy nuyu. Mm-hmm. ci teraanga yi nga xam ni mi ngi koy def. waaw te teraanga yi nga xam ni mi ngi koy def yal na yàlla fay ko. amiin waaw barki démb jox nañu ceeb ceeb bu baree bare ak suukar. macha allah ñu jël ne lii daal nañ ko jël yóbbu ko ca daara ja. Mhm. jël ko yóbbu ko ca daara ja. Mhm. kon ajaratu mareem ah, ajaa ajaa ndaak ñang yal na yàlla fay la. pap sa daara ja bi ngay bi ngay mébét. Mhm. yal na ko yàlla defal. waaw fi mu toll nii nag. yàlla la fi soppee Seydina Muhammad fekk. finance ko ba mu xaalis a des xaalis. dina ñëw. xaalis daal moo des. ñi bëgg yonent bi yëpp ak alquran ñu ngi lay dégg. pour nag pour nag daara jooju. ñu war a tàmbali. Mhm. bëgg ko def daara moderne. Mhm. moderne. Mhm. xale yi dañuy mokkal alquran. dañuy jàng français. dañuy jàng anglais. est-ce que waaw ah, moderne fa la yem de. ah fa la yem. xale daara daara la joo xam ne tabax bi ma bëgg ñu defee ko. seen néeg dàq néeg yi kër. macha allah. l'islam mérité na lu ëpp loolu l'islam mérité na lu ëpp loolu mérité na lu ëpp loolu waaw boo leen nee jàkk nekk xale yoo xam ni euh, ba ba pare euh, daa ñu am yar insha allah moom daal xaaj Malick kon day nekk xismu taxfiis xismu taalim xismu tarbiya tarbiya hmm. mokkal alquran jàng xam-xam yaru yaru ñaan yàlla ña cay génnee bokkuñ ci ñiy taxaw réew mi ëllëg insha allahu taala daara joo xam ne président mën na caa génne mm-hmm. daara joo xam ne ministre yi mën nañ caa génne mm-hmm. dërët imaam yi mën nañ caa génne mm-hmm. ñu yor wàllu diina ji mën nañ caa génne loolu daal laa laa laa wax ak yonent bi laa laa wax yonent bi daal dina la si fekk ko daal loolu laa bëgg insha allahu taala waaw mu toll nii nag moom moom moom xaalis bu bare baree bari moo war a tabax daara ji yàlla am na ko ah te yonente bi jaral na ko xanaa nga wax soppi Sidina Muhammad rek ñu tabax ko yàlla am na ko yonente bi jaral na ko te ñoom ñëpp lay dégg insha allahu taala dinañ ñu la di Hajj Malick waaw wallahi missionnaire nga mhm. ko tabax daara wax parce que yow nit ñi bëgg nañ la nit ñi yéene nañ la ndax li def ah. waaye su bëggee bokk boole liggéey boobu nag téléspectateurs yaa ngi may dégg ñoom ñoo koy tabax insha allahu taala balaa ñu fay toog déwén mhm. di nga ne daara ji fii la toll ci kattanu yàlla insha allahu taala parce que nit ñi bëgg nañ diine wallaahi xamul fu ñuy jaar rek wallaahi wallaahi jëng waaw dëgg nañ diine ngi lay ñaanal yàlla sàmm la waaw pap waa nag nga baal ma mhm. balaa maa tëj nga dimbali ma rek baatu cant mhm. ak ngërëm ak ñaanal la yàlla bu jëm ci yow ah, dëgg yàlla déedéet déedéet pap dafa am loo xamante ne bi ne nit baadoo la rek kay def ñuy ji ko teraanga defal ko ko mu ne dama koo yeyoo dëgg la sama xarit nga sama lépp nga waaye pap lii ma li nga may def loo nii te juróom benn at ci ren hmm. ñi ma ko dàq rek nekk ci réew mi ah, ñu ma gën a mokkal alxuraan gën maa neex baat gën ma koo sellale waaye nga ne pap yow daal laa taamu weer wii di weeru alquran mm-hmm. nga xam ne ci anniversaire alquran mm-hmm. laa bëgg nga ñëw gungee ma ci télé ba ñu def mm-hmm. siira sayduna muhammad ndax ku wax yonente bi wax alquran ndax aïcha ne woon na kaana xuluquhu alquran loolu nga xam moo tax nga indi ma fii ayat alquran yi may jàng nga koy tojal téléspectateurs yi ngir ñu seen cofeel ci yàlla ci sayduna muhammad ci koor ak ci jaamu yàlla yëpp tabaarakallaahu pap amuma sax fay maa ngi lay ñaanal yàlla nga yëg ko ak ma bañ ko yëg saa yoo ma yëgee wala saa yoo sama xeleen dem si yow nel amin mu lay ñaanal yàlla bu baax yaa xam li nga bëgg Mhm. yal na la ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi ëllëg yowmal qiyaamati ñay dar yonent bi ñoom Xasan ibnu Saabit ak ñoom Kaab mhm. ak ñoom Abdou Aziz Mbaye ak ñoom Ngañ Mbaye ak ñoom Ngañ Mbaye mhm. ak tabarakallahu waykat yooyu bu ñu daree Seydina Muhammad di ko gunge biir àjjana yaay ànd ak ñoom di tagg yonent bi loolu lañ lay ñaanal yàlla loolu lañ xol lim ci bëgg a wax yëpp mënuñu ko wax waaye daal ñu ngi lay ñaanal yàlla pap li nga bëgg yaa xam sa projet yi nga mébét yëpp yàlla na ci yàlla teg loxo mm-hmm. mm-hmm. wutuwu la ci lépp ci barke Seydina Muhammad tabarakallahu di nuyu soxna Mariama rek ah? di nuyu soxna Mariama di nuyu sama kilifa sëñ Mansour ak waa kër ga yëpp Hadja Penda Dieng mm-hmm. ak waa kër ga yëpp Cheikhuna Tidiane Serigne Babacar Ibrahima ma ca Paris Habiballah mu ngi lay nuyu bu baax sama sama kër yëpp sama njaboot sama famille yëpp maa ngi lay nuyu tabarakallahu di nuyu madame la ministre bi nekk Dubaï nu mu tuddati xujja xujja mu ngi lay laajte rek ak Adja Adama du taata émission bi moo pend ak aji marem Thiès Ndar Dakar Tamba Kolda ñu ngi nuyu ñëpp mënuñoo lim ñëpp waaye daal nañ xool yi daal ñëpp xam ne ñu ngi di nuyu ah, États-Unis alxaaji bàcc ñang ak njaboot ga yëpp ajaa ki ne maar borom parfum bu neex bi ak mbóoj tabaarakallah waaw Rachid ñang Rachid ñang ñu ngi nuyu ñëpp Rachid Rachid waaw waa euh, Pape Badji ak aji baaji ca Paris. soxna Yuma Aïcha ca Philadelphie. jërëjëf tabaarakallahu Khady Faye Khady Faye macha allah. soxna Maguette. soxna Maguette mais Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. sama Serigne Mouhamadul Habib waaw. sama Serigne tabaarakallahu sama Washington. macha allah waaw def na tournée bi muy def ci koor gi ba delluwaat na moom. Mhm. moom njaboot gi nuyu ko si. macha allah si Demba Khuraja ko fa mu yàgg fii loolu nuyu waa ITFA nag waa ITFA yëpp. Mhm. waaw seen njàmbaar seen taxawaay seen yitte ju kawe. waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla yokku leen dëgëral nu ñu nag waa waa waa waa waa euh, daayira maam faa wàdd wele waaw nuyu soxna Aminata mhm. ñoom fax nuyu présidente mhm. waaw nuyu soxna faa mbaw ñoom yaayu daara waaw daayira maam fa wadd wele di ñu am yitte di ñu am pas-pas macha allah mu na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ah, naa yaakaar ne daal suba daal moom ah parce que tey la ma li wari hmm. te nag mënuñu am différence bu ñetti fan nag pap ah, ah yàlla baax na yàlla yàlla dimbali kon Pape tabarakallah mais tey ci guddi gi da ngay ñëw quartier général incha allahu tey la spécial sayyiduna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu ko kenn wuute déedéet bu kenn nelaw tey la noo waxtaane rasulullah yi incha allahu taala Oustaz Ahmed Fall Oustaz Ahmed Fall mooy ñëw mooy ñëw allah allahu taala jéeri gay mooy jóge ndar incha allahu bu xulaamu rasul ndeysaan nga xam ne xulaam rasul rek rasulaay dong la way yonent bi rek yonent bi kese kese kese kese sallallahu moo tax euh, dañ ko bëgg a def rasulaay dong kese waaw yonent bi donc insha allahu taala insha allahu taala yàlla yonent bi rek nga xam ne tey la ñuy xam ne nag waajee ko sakkan ki mhm. tey la xam ne kookoy kilifa ñëpp ñiñ mooy kilifa ñëpp mooy kilifa ñëpp moom yonent bi alayhi salatu wasalaam insha allahu taala alaaj Vieux Diouf moo nekkoon ci rési bi alaaj alxaaji Babacar Bey mhm. euh, alxaaji am mhm. jogamaay waaw jogamaay ñu ngi koy gërëm euh, gërëm waa rési yëpp ñaanal leen yal yàlla yokku leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alxaaji yunus dugalaale ma sama nijaay Mouhamed Dieng ca Caaroy Mouhamed Dieng ca Caaroy njaboot gi yëpp waaw léegi lañ lay bàyyeeg nag sama xarit yëpp sa umpaañ yeeg sa xarit alaaj maa ne da nga bëri ay goro Seyda faat Bintu Diop mooy ñëw léegi ànd ak Oustaz Assane Seck Oustaz Mor Thiam mhm. ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na ngeen am jàmm dëkk bi am jàmm mhm. réew mi am jàmm mhm. Sénégal am jàmm soxna Fatoumata lii ma nga fuuta maa ngi koy nuyu baax a baax mhm. ñëpp am jàmm xaj maa ni nga am jàmm ma am jàmm ah man tamit ma am jàmm nga am jàmm mosuba ak jàmm insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi seen jën nekk ci VDN bi ñëpp ràññee ko ci qualité jën bu baax moo leen doon may seen émission Sirr di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm woor ci jàmm woori ci jàmm ak seen jën boo bëggee qualité jën dëgg da ngay dem seen jën qualité supérieure lépp lu baax tey génn ci géej gi doraat yu baax ya coof ya gën beurre sëdd crevette cameron filet de wu ñu dara lépp lu baax ci géej gi ma nga seen jën seen jën liggéey bu mucc ayib seen jën qualité supérieure ya nga xam ni moom la ñuy exporté en Europe moom la ñuy jox sénégalais yi daw leen gaaw seen jën mi ngi nekk ci VDN bi en face cimetière Saint-Lazare wala ngeen ñëw ci suñu site internet seen www.senjën.com lu ngeen am ñu jox leen jën yu baax dañoo bëgg kat ñëpp di jot ci jën yu baax yi ñu am fierté bu baax ci seen jën jën Sénégal jëm ca kanam